Bonjour C'est qui ça déglu leen là. la moi guy 95 le 15 15e mois 95 à Malika waa kii moom kan moo ko wax mu présenté je me présente jamais Mais pas mon, dafa la deret comme ku juddu jouru 31 rek dafa <laughs> yabaate rek booy bi dañ <laughs> ko war a dóor ba mu dee ginnaaw bi ñu yàlla maye fekk ak tal ñu génn ci deux mille dugg ci deux mille vingt et un. enfin. ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm. continue. comme que ñun ñoo dund ba génn ci deux mille rek lu waay ñu mu jeex. li nga wax mooy dëgg. moo tax le 31 décembre 2020 bi heure bi defee 0000. nga ni. maanaam 0 heure 0 minute. lii moo nekkoon sama première réaction. alhamdulilah. <laughs> bu 2021 naree mel ni 2020 yàlla ñu dugg 2025 direct. xaay xaay ndaxte deux moins zéro égale zéro ku wedd laajal mathématicien yi bonne année deux mille vingt cinq i mu waay ku wax loolu bonne année deux mille vingt cinq eh, astafurlah kii di Père Youssou waaw moom la lii de nag nag xanaa mooy efficacité à la musibarité àdduma ci jaral na ma sam bakkan bi ndax Père Youssou nii mais kax muy dëggal du am du am bi lay du am deux mille vingt bu naree mel ni deux mille vingt et un yàlla ma safara jël addiya ndaxte 2020 mo raw dëgg ni lawbe ma ne instant bi mom 2020 la dem rek ma dem. sama xel ñaaw na ci. eh kay souhaiter ma fan si ci at bes bi ñu dugg way ma ngi ñaan ñëpp gudd fan wér gu yaram. amin ané oui. santé bonheur. ak lan. priorité. mu ni. <laughs> priorité. ah ok prospérité. <laughs> eh jël mo koku tamit lu mu xam si fin d'année bi. wax ah, maa ngi souhaité ñëpp happy birthday. mu ni. ah maa ngi souhaité ñëpp happy birthday. laa bisi la. man moom instant bii taluma wax ji. kaay leen ngeen jël bagage yi ñu dugg ci 2021 gaaw. Eh, eh, kaay leen jël bagage yi waaye yi waaye. leen ngeen bëgg a pressé ba fàtte bagage yi tamit. doo leen di si ngeen ne bagage yi dem. acca kon ñu dem 2021. wow 2021 Muy bien i tey rek ngeen premier cas 2021 rajam max rajam moom kay amul daw assumé leen ko mais ñoom dafa personnes lañ sax dem ëpp na def ya cheikhul ibrahima baba lamine dias mënoon nañoo motali baara mbay gi rek <laughs> xena bu police bi ñëw bu am dégg-dégg rek dina ci bu jën ben mbay bu jën ben mbay li ngeen japp ta la gamba neex na meli du ba tok na su wacce ba wacc suuf ba noy ba noy nip hmm. mag man ceef <laughs> mënoon nañoo motali baara mbay gi rek parce que matul mais mu dem rek su matul du dem parce que ki dafa deju ah lan moko tej segenda dama segenda jeexi segenda bare wël moom mi de temps bi mu teg sax lecture sabar sax reconnaître ko ñun tëggat yi mën na noo wax loo xam ne doo leen ko liir ba mukk moo taxit liir naa ba sonn mënumaa comprendre lu jóol bi di wax loolu yomb na waaye ku dégg koy xam man kay xaw ma ko da ngaa déggul demal ah dem <laughs> kon day yomb <laughs> kon kay policiers dañoo dégg moo tax ñu liir bara mbay gi ñu xam ne lii bara mbaye ñu lal frein ndànk mom kay kon gérer len ko rek wa fu vaccin toll tamit. da ngaa yittewoo ben piqûre corona bu dëgër dëgër dëgër. <laughs> non grand léegi yow. 3500. Eh, i jàpp len ma ngay daw. waaye yéen mënu len ma indil ki xana ay dom raam mi bàyyi ma gaan. way indil len ma ki ma piqûre ko way way e eh, ban piqûre. na ñew na ñew na ñew eh! na ñëw na ñëw eh, ñu may yóbbu de. ana vaccin bi. vaccin. bàyyi leen ko teg leen ko ci suuf bàyyi leen ko teg question réponse la. non. <laughs> mais Fall yow moom ragal nga vaccin yi de. daara ya gars yi bay ne vaccin yi buñ laal ko. moo taxit kay yaa raw Ami Mbacke Thiam. ndaw vaccin. Eh, jox leen ko dàll mu dem waay. non garaaw dàll yi. may naa ko waa corona baay man bu ma piqué rek gars Fall yow kay kenn du la piqûre ndaxte daara ji Baye Fall yi nee nañ vaccin yi duñ ko laal de. wala bu doon ay comprimé sax mu neexal li déglu mais piqûre bu dëgër nag lañ wax. dëgër <laughs> man sax Baye Fall laa corona wu ma de te bu bëggee sax ma si sikar man de lii laa wax mbàyyi ni loolu ngeen wax. lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. bu ko defee suñu maam mën naa def ñaan. Amin. iPhone les gars, faut les plus de deux.